ngay man di jot vidéo yu am anu solo yi bàyyi koo fii ci HDP religion da ngay bés fi ñu wax ne bo noppé ñi tek ci kolos bi eh, ñu tambalé ci tomb bu am solo muy mboolem historien yi ak bindkati siire yi dañuy tambalé ci di tuddu askanu yaronte bi sallallahu alayhi Wasallam. ta lolu loolu dafa yel ci katu xam-xam bu ne mu am ci ab gis-gis am ci ab setantal ndax bu ñuy tudd yonente bi tàmbulee ci tudd aw askanam ni mooy Muhammad ibn Abdillah bin Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf di ko topp ba ci ñaar fukkeelu maam ak benn foofu ñu yem yonente bi moo daan tudd ay maamam bu masaan agsi foofu yi ci Adnaan fi la daan taxaw daana leeral it ne Adnaan moomu ci walla waladu Ismaayil ci la bokk waaye bu ca masaan aksi nag day taxaw ni kasaba nasaabuna na di waaye nag nettali kati askan yi nag mën nañoo fen foofu rek lay yem ñu dégg ci ni kon li tàmbalee ci Muhammad ibn Abdillah ba ci ñaar fukkeel bi ak benn ci ay maam loolu moom leer na nattab li amu waaye nag la ca tàmbalee ñu di kon tuddu ba ba muy àgg ci adama nag loolu moom ay lënt am na ci mën naa wér mën naa bañ a wér fii daal waaye nag li ma jublu rek mooy lu tax historien yi ak bindkati siré yi di tàmbalee ci tuddu ay baayam ak i ndax loolu euh, mën naa yóbbu lenn ci lenn ci nit ñi mu indi leen am lënt ci ñu jàpp ni aw askan dafa bokk ci euh, diine dafa doon loo xamante ni lu ñuy xalamaale la ci diine euh, ndax euh, kii boobu ñu ko jox ndax gëdd googu ñu ko jox te fekk ne xalaat boobu rek moom la islaam ñëw ngir màbb ko islaam dafa ñëw ngir màbb ni aw askan taxawut li taxaw dëgg dëgg dëgg mooy gëm yàlla ak ragal ko ak jëf yu baax wax ci alquran ni yaa ayyuha naasu inna xalaqnaakum min zakarin wa unsa yéen nit ñi di dañu dañu leen a bind ci góor ak jigéen wa jaalnaakum shuuban wa ngeen di ay peuple doon ay kiir waaye nag lépp li ta'aarafoo ngir ngeen xamante loolu ci jublu ngir nit ñi mën a xamante gi mën a jàppandi moo tax mu xaaj ko ay xaaj noonu def ñi ñu bokk gën a jege wante waaye ñëpp ay doomu aadama la ñoon mu nag inna akramakum indallahi atqaakum ki gën a tedd ci yéen mooy ki gën a ragal yàlla ci yéen kon loolu di mooy li ñor diine eh, léegi nag yonente bi dikk ni laa fadla li arabiyin ala ajamiyin illa bi taqwa ab arab gënewul ab ajam dara lu dul ci ak ragal yàlla baaxub doomu aadama dañoo baaxoo di ndamu ci ay askan nga xam ne kenn ku ne askan wa nga askanoom da koy top di ko taqdis di ko sellal di ko fóorise fóor boobu nga xamante ni yàlla fekk na ko nit ñi di ko dund mu mel ni dafa doon seen aada ju ñuy dund moo tax mu tànn yonente yi ci néeg yi gën ci néeg ngir euh, buy indi ak nubuwaam it fekk na la la nit ñi doon xool ci ak tànn fekk loola jëkk na ko tànn ba noppi muy boole na ko ci askan yéen nit ñi tànn nii ñooy askan yi gën mu tànn ci ay yonente waaye bi mu leen ci tànnee lépp ba noppi nag da leen a defal ci ay jikko ak i lo loo xam ne la ñuy loolu la ñuy nit ñi ba nit ñi man leen ko roy kon li tax kat yi siire yi di tàmbale ci loolu yonente bi daan ko tuddu euh, loolu moy nit ñi lañu fekk ñu gëm lool gëm aw askan di ci sukkandiku di ci ndam yalla won leen ni leen ki ma yone ni ci ñi gën ci ñi ngeen di tan ci la ko tan legi na andi nak la ko ñor def ko ci moom moy jikko ju rafet ak i ba nit ñi man koo roy kon loolu dafa doon tomb bu am solo boo xam ne euh, leeral gi da cee baax ndax nit ñi man cee yeewu man cee yeete euh, bañ bañ a tarxiis di dugg ci lenn ci euh, yoon yi nga xam ne lenn ci lenn ci arab yi ñoo koy sos ñu di ko tuddee al qawmiyatul arabiya am na ci ñoom ñoo xam ni lépp dañ koo tënk ci ak arab باغ تي امنا تي وخني حسبنا اننا عرب نون دون غينو دون اي عرب رك دينا تا لولو دي دا دي بوجي اك لا ا لاني دان بيند تي جامونو ايتلر وي بين المان فوق الجميع لاني دان بين المان مو نيك تي كاو نيب بوبا لولو دي دا دون غير بو خامتاني كين دو خام فمو يامي واي نك دنج كوي دنج سي ييت رك نيغا خامني اسلام امنا بنين افير بو كو نور بو بوكو تك او اسكن بو بوكو تك القوم العربيه بو بوكو تك خيت راس مي خيو لب تي kon loolu ay tomb la rek yu ma bëggoon a leeral noonu tuuti euh, léegi nag bu ko defee euh, muy ñu jàll ci beneen tomb tomb bi nga xamante ni léegi am na lu ñu ci war a déggee am am ci lu ñu ci war a jàng mooy tomb yonente bi ku teel a ñàkk ay wayjur la te la ñàkk ay wayjur la te teel a ñàkk wayjur euh, daana yóbbu nit ki ci ak sànkute bu dee ci ab yar mën naa ñàkk yaru bu dee ci ku ko taxawee ba teg ko ci aw yoon it mën na koo ñàkk euh, loolu kon teel gi yàlla teel a ñàkkal yonent bi ay wayjur am na benn xikma bu ci nekk xikma ba ci nekk mooy ki daan ñàkk wayjur lu ci ëpp day day néew na ku ko ku ko yar jàngal ko daf koy ñàkk waaye yàlla jubloo wane tawxiid bi mu jubloo yónni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu tel ko ñàkk loo ay wayjur ba amul ku ko yar amul ko ko jàngal amul ko ko teg ci aw yoon yàlla ni nga xamante ne moo ko bind yo fas ko yéene yoon nag féete woo ay mbiram loolu kon ab tombu tawxiid la bu ñuy jàngee foofu ci ne tawxiid bi mu jubloo jàng rek yàlla feeñal na ko ci ay mbiram ba ca teel ba dara daatan xew moo tax mu ne ko alam yajidka yatiman fa aawaa wa wajadaka daallan fa hadaa fekk naa la nga doon ab jërëm ma tàppoo la fekk naa la it nga réer ma gindi la te ñaar yooyu lu daan jafe la ci ku teel a ñàkk ay wajur waaye yàlla da cee bëgg a wane xekk maam foofu te yonente bi mooy ngeen ji misaal ci ay teggin ak xam-xam akum koom ndax lu ci ne rek dem na ba giijal ci bu dee ay teggin ab yemukaay na ci bu dee xam-xam ak nubuwoo doy na ci ab yemukaay bu dee am koom yonente daana dem ba joxe ndoo ñeenti téeméeri gileem ci benn jotaay loolu lépp nag teewut mu daan dund ak faqru moom ci jëmmi boppam waaw li mu daan mën naa xëy ci benn jataay mu joxe ci lu mat ñeenti téeméeri gëléem waaye teewul ci ak fakkarul daan dund daan xëy xiif lool dem ci néeg soxna Aïcha laaj ko ne ko ndax dara néew fi mu ko dee wax dëgg dara néew fi daana xëy euh, daana jëkk ba guddi mu yeewu di doxantu benn bis mu yeewu di doxantu dajeek euh, Abu Bakar ak Omar mu laaj leen lu leen génne ñu ne ko ab xiif de nu tax a génn mun leen li leen génne de moom a génne bi mu waxee loolu ñu ànd dem ci kenn ci benn kër ci kër yi lamsaar yi waaye bañ demee kooka am ci mbégte lool daal di muti ab gàtt daal di koy rey defaral leen ñuy jëfandiku ci waaye ba ñuy génn ab xiif rek leen génne woon te amuñu fenn fuñ mën a jëm fu dul euh, sàkk pexe kon noonu léegi danañ dégg ci li ñu jàngee woon ci melukaanu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba tax soxna Xadija tànn ko jox ko aslëf ci marchandise mu dem saam bu mu ñëwee it ci biir loolu ci la sukkandiku ba tànn ko bëgg mu féete woo ko def ko soxna loolu danañ ci dégg ni jikko yu rafet dafa doon lu ñu soxla ci ab société jikko yu rafet ni ñu ko soxla fépp lañ ko soxla ndax yonente bi e, ci biir jikko yu rafet ci la ko soxna si tànne yëkkati àllam jox ko ci biir jikko yu rafet ak matale gu matale lañ seqoon eh, ci la soxna si jaar ba sàkku ci moom mu denc ko ci biir jikko yu rafet ci la ko nit ñi wóoloo woon ba daan fab seeni alal di ko ko dénk te booba nubboo gi ñëwagul ñu xamee ci ni kon jikko rafet moom dafa doon lu lu ñu itteewoo ci àdduna bi ak fu nit nekk doon lu ñu itteewoo nit ñoo ko soxla ñoo ko itteewoo ñu ko daan dénk seeni alal booba muy génn di gàddaay sax dafa fab mboolem ndénkaan yi desoon ci ndénkaan yi jox ko Ali ibn Abi Talib ni ko toogal ba delloo mbooleem nit ñi seen i ndénkaan doon maa dab si dégg ca ni euh, nit ki euh, jikko te mooy am kóolute dañ koo soxla ci nit ak fu mën a nekk nit ñi ci seen jëm bopp it ñoo ko soxla ak xaqiida buñ mën a dund bu ñu jàmm soxla nañ ko bu ñu doon ay jullit soxla nañ ko bu doon ay nasaraan soxla nañ ko bu ñu doon ay yaxuut it soxla na ñëw nit ku yor jikko ju rafet pour mën a ànd ak moom danañ ci dégg nii jullit soxla nañ ci moom mu am kóolute maanaam na am sécurité kóolute ci digganteem ak nit ñi ba ci digganteem ak ñim bokkalul pas-pas sax soxla nañ nga feeñal euh, jikko yu rafet sa diggante ñoom ndax loolu ñu ngi koy dégg ci yonante bi mbooloom bi ñu tabaxee kaaba gi ba àgg ci di seet ni xajarul aswad lañ war a teg te xajarul aswad mooy li gën a tedd ci di euh, digg kaaba ñu ne kon kan moo ko war a teg ñu terale ko ko léegi bañ ne ku jëkk dugg si rek moom la ñuy àtte woon lu mu ci àtte ñu doxal ko yonent bi moo jëkk dugg si ñoom ñëpp dañoo d'accord ci ab àtteem te dara waralu ko lu weesu melokaan yu rafet yu meloon jëkk loolu te boobu sax bokkut te ñoom pas-pas ñu wut waaye dañ ciy dégg ne jikko yu dañ ko soxla ci nit ki rek li ñu jàngoon danañ ci jànge ne kuy woote jëm ci moo xam diine ngay woote wala ngay woote jëm ci ab tariixa la wala ngay woote jëm ci ngirum politique wala dara loo gëm looy woote jëm rek euh, lim laaj mooy nga teey ndànk par ndànk ndànk par ndànk dara xëyut sotti loolu ñu ngi koy déggee ci ni yonente bi sax bi ko yàlla doon yónni daf ko jox ndigalul ni ko li ngay woote na nga ko woote ndànk ci suuf nga xam da doon topp ay xaritam di wax ak ñoom ci li ko yàlla yónni ñu nangu kenn par kenn ndànk par ndànk ba ngir la lépp rek mu ngi doon ragal bett nit ñi ak loo xam ne xamuñ ko woon te mbetteel boobu mën na leen a andil ñu far gàntal ko bu faaw moo tax di ko def ndànk par ndànk ba nit ñi nga xamante ne àggagul ci ñoom it danañ dégg ñu ne mi ngi woote nangam dégg ñu ne mi ngi woote nangam te accès gul ci ñoom boobu sax am na lu mu leen di jariñ ci woote bi bu accès moo tax bokk na ci xikma si kuy woote jëm ci yàlla nga def étape par étape ndànk par ndànk bañ a jekki jékki rek ni teel ni li ma bëgg day sotti mbaa mbaa mbaa addina tukki loolu du xëpp ma kon dinañ ko jànge ci ni yonente bi sama sama doxalee ab wooteem ci njëlbeen jànge nañ ci biir marxal boobu euh, taxawaayu jigéen ci islam soxna Khadija euh, bintu Xuwaylid euh, sunu jigéen ñi mën nañ ci jëlee mën nañ ci jëlee leçon Euh, rawatina ci jamono bii nu toll nii nga xam ni coow li bari na ci ñu naan islam dafa joxul jigéen àqam islaam dafa nangam islam dafa lii dafa laa di ko tuumal tuuma yu bari bari euh, jigéenu jullit am na dërs bu mën a jëlee ci soxna soso la ci jëkk la ci jëkk ci luñ ci mën a jànge mooy xel mu rafet tëkkuwul ci góor tëkkuwul ci jigéen ndax ngeen ji mbindeef gëlëm na mu yent bi soxna dem na ca xuntima ak wax yu fekk ko fa loolu la tiitloo ko ba bi muy ñëw ci këram daf doon lox di wax ni zammi loo ni muur leen ma ñu muur ko mu lox ba lox ga dal mu wax soxna si ne ko man de damaa tiit ci sama bopp damaa tiit ci sama bopp waaye moom moo ko dalal moom soxna sos kon ngën ji mbindeef gën a mat ci nit ñi am xel yàlla tànn ko ci nubuwa gi ba mu jaaxle jigéen na ko dalal te ba mu ko dalalee dalal googu am na ci njëriñ soxna si moo ko dala ni ko ni ko kalla wallahi laa yox si kallaahu abadan ni ko déedéet yow de yàlla du la gàcceel mukk ndax danga jox jokk bokk danga nga berndeel gan da nga fekk ku lot nga gàdd ko danga fekk ku ñàkk nga di ko dimbale lépp luy xew-xewu dëgg yi danga ci jàppalante ak nit ñi kon yàlla du la gàcceel mukk ci àdduna ni ko jógan ndam daal di koy jël ànd ak moom ba ci ku ñuy wax Waraxa ibn Nawfal te Waraxa ibn Nawfal moom dafa doonoon borom xam-xamu ahlul kitaab ci la bokk doonoon boroom xam-xam jël gi mu ko jël dalal xelam ba noppi yóbbu ko ci boroom xam-xam bu ci war a mën a xam dara képp rek moomu xel euh, dégg nañ ci ni xel mu rafet tëkkuwul ci góor tëkkuwul ci jigéen loolu luñ ciy jëkk a dégg la ñaareel ba mu doon royteef ci sunu jigéen jigéeni jullit yi ndax ab commerçante la moom soxna Xadija daan fàggu ba am ci cër bopp xale yu góor yi dëkk bépp dañuy ñëw ci moom muy fab euh, ay marchandise di leen ko jox ñu di ko jaayali am cër buñ ci war a am ci buñ ko jaayee ba noppi ba ci biir loolu ci la yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee ci moom mu jox ko ab cër ci marchandise mi mu dem dikk ba mu gisee ci moom ko yam ci gis ci la sàkk ci moom mu denc ko kon ba tey euh, loolu ab dërs la bu ñuy jànge ci soxna si ci ni euh, jigéen taxuta doon ab yaafus jigéen taxuta ñaaw am xel jigéen am na rôle bu mu war a suyee ci biir société bi muy dund loolu jullit bi ci Khadija ci lu muy dem ci ay Europe ak Amérique di ko fa jàng ci te it mënees na koo roy ci xel mu rafet mi mu yor ba tànn yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sàkk mu doon borom këram te booba day bi amul daraja ndax day ba kenn amul it alal ndax ci moom la sukkandiku ci lu mu koy jox mu di ko jaay di ci am bénéfice kon xam nañ ni alal taxutoon mu topp daraja jum amit taxutoon muy sàkk ci moom mu denc ko kon loolu ba tey doon na bind bu ñu war a roy ci moom am lu ñu ci dégg ci ni léegi nit ki euh, jamono bu ne war naa xam ni màdd te ay matériel bii xew léegi diggante ay tabax ak ay kër ak ay alal yu ñuy dajaleek yooyu yëpp wasiila la war a doon te mooy aw yoon la wu ñu war a doon ngir wu ñu war a jaar ngir sàkku ji dara waaye du ab yemukaay nag boo xam ne ku ci àgg da nga war a tax am na leneen lu ko gën a for leneen la ko gën a foor nag soxna Xadija moom la xam ba di ko sàkku ji ci yonente bi sallallahu alayhi wa te mooy makaarimul axlaaq kon loolu ab euh, bés la bopp waxuma sax jigéen ñi dañ koy jàng ci moom waaye jullit yépp loolu war nañ ko def mu doon am jàng mu jàng ci soxna soosu ci dërs yi ñu weesu ba tey jànge nañ ci ni nit yi jamono yi léegi ji ak nit yi jamono yi démb ñoo bokk wenn melokaan wuñ mel fii nit ñi jaar jamono bii nu toll muy dara ñoru leen lu dul alal dara ñoru leen lu dul wërsëg dara ñoru leen lu dul xëccoo ay personnalité moo fi nekkoon démb ak bëkk démb loolu danañ ko jàng ci ders yi ñu weesu ndax dara loo xam ne dana soppi seenub dund lu mana don, doon dañ koy gantal ca saase bu fekkee dëppawul ak seeni bànneex te mooy ni Qurayshin doxe woon ak yonante bi sallallahu alayhi wa kon usloob boobu du sopp usloob nit ñi du soppiku ci seen melokaan du soppiku ci euh, ci ni nit ki wala boog euh, doxin wi nga xamante ni euh, moom la yéefar yéeg ñëpp di ko dox nekk mooy mooy nit ki benn nga xupp ko mu ñëw fekk si la ba nga gar ko pour mu fekk ci la dafa melni xuppu ak gar moy ñaari mbir yi nga xamni mom la fi andi ci kaw suuf xamuñ benen tariixa ñettel bo xamni ni dañ ci jaar pour sakko ko seen bëgg-bëgg yalla tabi sallallahu alayhi wasallam bi ñëw di woote anduñ ci woote bi muy woote lañ jëkk def mooy dañ ko xupp ba xam xupp bi dana am njariñ wala déet ba mu amul njariñ ñu gar ko gar ko ci alal ak ko ngoo ak daraja waye xupp ba amul njariñ gar biñ ko doon gar ci ñett yoy Bimu jakarlo lo, ak pas-pas bu pas-pas ba daf koy bëmax rek mu dal ndax yonent bi dalen ni giñ ci yalla ni bu ngeen fabon jant bi teg ci sama di jar fab weer bi teg ci sama loxo càmmoñ ngir bëgg ma bayyi li ma nga xamni mom la sama borom digal du ko bayyi te du sama borom mo ma digal ma bàyyi ñu ci ni kon pas-pas bu dëggu ci xol euh katanam yëmuta gën katan ci adul lu dara am am am doole rek looloo ko ëpp dole lor nañ ko mom ci julit yi nga xam ni ñoo jëkkoon ànd ak moom it bundu xataal yu metti ak lor yu metti dal na leen ci islaam waaye lu lépp delluloowu leen gannaaw dañoo muñ sàkku ab yool te xam ni yàlla ñii muñ la àndal loolu ba tey ab leçon la boo xam ni euh, lu ñu war a ndax àdduna la fi jaaroon ba jàll léegi ibnu xaldun ab euh, historien la boo xam day wax ni àdduna jamono bu ne sa démb mën nga koo jàng ci tey tey it man nga cee jànge ëllëg ndax àdduna ni mu nuroo mi ngi mel ni ndox ak ndox niro léegi lépp lu daloon nit ku sóobu aw yoon pas-pasu jullit te bëgg dëggal lépp lu ko daloon ca jamono bopp ku ko sóoboon jamono bii ñu toll ni dana la dal la daloon kooku dana la dal léegi danañ la woyafal danañ la bunn xataal danañ la lor ci wax ak ci jëf waye nak fa ñooña jaaroon ba jall it yow mi fa toll fo ngi mën jaar pour jàll ben yoon bi rek déglu len li yonent bi wax yonent bi neena lor nañu ma ci yàlla lor ma ci fa lor kenn lor jëni ni mel tiitloo nañ ma ci yàlla tiitloo ko mosee suta tiitloo kenn tiitloo ko ni mel tok mag bilal fan wéri bis ñew yo xamni mag bilal duñ am lu borom mu dess di lek lu dul loo boko boko boo ci poqutaalum bi bilal ken du ko manam tout lañu yor di ci mos dank par dank diru wer mo bilal daal dañ ko dundu mom yonentabi sallallahu alayhi wa sallam yonente bim bi ak ciono yañ ko fa sonal ak bu ndoxataan yaag ñàkk donc ñàkk wujji bam amé jaxale ba dem taif far taif rawati euh fofu amna dars bu mu fi jàngal dars bu mu jangal moy moy ab bu yépp mu xool xool xamul fu muy jaar na dellu ci yàlla yonent bi sallallahu alayhi wasallam bim bi màkka am yaakaar ci waa taif dem taif ñooñu raw waa màkka ci ak gàntal bu bunt yëpp sakkee dafa dellu ci yàlla dal di ñaan euh, ñaan gu siiw gogi muy allahuma inni ilayka ashku dofa quwwati wa qillata xiilati wa hawani ala almaxluqin yàlla yow de laay jàmbat ni ma néewee doole ak nii ma néewee ay pexe ak euh, nii ma nit ñi woyofale loolu yow laa koy jàmbat yow yàlla kon loolu ab dërs la boobu dañ ciy dégg ni jullit saa bu demee ba gag xool bunt yëpp mu sakk na delluwaat ci yàlla yàlla rek moom mën a sakk ci yàlla bunt yi won ko ab bunt bu mu jaar jàll loolu ab dërs la bu nga war a jàngi foofu yedd gi yàlla yeddoon yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ci sababu abdullah ibnu ummi maktum loolu ba tey am na luñ ci war a jàng Euh, ndax danañ ci gisee ni nit ki daraja ba mu mën a am moo xam ci wàllu xam-xam la walla dafa am daraja ngir diine jum am ba nit ñi réel ko mu am daraja ngir diine jooje wala daraja jum mën a am ci wàllug euh, màdda te mooy alal ak lu mën a doon lu la mën a may alal rek euh, léegi war ngaa bàyyi xel ñu néew doole bay jëfleenteeg ñoom jëfleenteeg nit ak nit te yàlla képp tax dërsub euh, Abdullahi ibnu Ummi Maktoum mi ñëw ci yonent bi fekk yonent bi wax ak kilifa yi Quraysh euh, ñëw gi gumba googu ñëw doon ak gumba ba noppi doon ak faqiir euh, xatal gim xatal jataay bi ci moom ba tax mu soppi xar kanamam wëlbati ko woon ko gannaaw yàlla yedd ko ngir defin woowu mu def loolu dafa doon ab dërsi bopp ku ne rek war nga ci jële am njàng ndax yàlla moo def adduna muy ay étape Euh, ku ne rek am na ku la kaw am ku la suuf am koo xam ne sa morom la yéen a toll benn boroom xam-xam bu wax ne wamal maru illa waxidun min salaasatin nit ki kenn rek la mën a doon ci ñett ñi ma leen di bëgg a wax wamal maru illa waxidun min salaasatin sharifun wa mashrufun wa mislun muqaawim ñett kenn la ci ñett ñooñu ben nga nek ci kaw ma nga nek ci suuf ma nga ak nga tollal ki la fete kaw ki la fete suuf ak ki nga tollal kenn ci ñett ñu moom dal ni fa amal ladi fawqi fa arifu qadrahu wa atbaahu fihi alxaqa walxaqu lazim dal ben nga nek ci kaw ma nga nek ci suuf ma nga ak nga tollal ki la fete kaw ki la fete suuf ak ki nga tollal kenn ci ñett ñu moom dal ni fa amal ladi fawqi fa arifu qadrahu wa atbaahu fihi alxaqa walxaqu lazim dal ni kima fete kaw damay xam dara jaam jox ko àqam ndax àq moom dafa war yàllaa ko wàcce ci kaw suuf mu doon lu war wa ama alladi duuni fa in qaala suntu an ijabatihi irdi wa an la malaim ki nga xam ne moo ma féete suuf it bu waxee danaa ñoŋal sama der ci tontu ko euh, ak di ragal nit ku ma yedd daal ni wa ama alladi misli fa in zalla aw hafa tafaddaltu inna alfadla bilxilmi xaakim ki nga xamni sama morom la it benn mu juum ba mu recc la lu mu ci ma a doon bu ko defé na feñal sama ak ngëneel sama diggante mom ndax mi ngi nekk ci ni nit ki lewete ak ni mën a ak ni kon euh, fofu dañ fi jàng daf suuf ni euh, nit ki fu mu toll ak dara ji jum mën doon rek war xel ñako suuf ngir jox leen euh, gëdd gi am gëdd doomu aadama ta jamono biñ ñu toll ñu ngi dund jamono bopp daanaka nit ki bu amul ab ci alali àdduna kenn ko gestu kenn du ko limaale ci dara dem nañ ba sëriñ gii ñuy dund sax dañ sëriñ ba nga xam ne yorul yorul dara nii di dund xaj ne ku ci dund tasawuf bu jëkk ga jëkk nga xam ne ñaari dërëm yoroo ko nit ñi dañ naan kooku bu mënoon a ñaan boppam lay jëkk ñaan ba léegi duñ fa jaar duñ benn wax ndax dañ naan li muy woote wérul te fekk ne euh, wàllug euh, màdda ak wàllug euh, ruux dañoo bokkul ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni adduna bu fekkoon ni dana peese fa yàlla kem laa fu yoo rek ab yéefar du fa am góoxum ndox bu mu góox alxayaatu ruuxiya te mooy dunduk ruu euh, mooy li nga xam ni mooy liñ nekk ci njëlbeenu li yonente yi doon woote te dafa mel ni ruu ak màdda ñaari wujj lañ yoo xam ne loo ci dàkk koo ci d'accord rek kajara du ngeen mën a def du ngeen def moo tax nit ki saa bu dundalee wàllug euh, yaramam ci lekk ak naan ak nelaw xool lu rafet ak yu demee noonu bu boobaa roo gi dafay dal di gëm waaye saa bu dundalee ak room ci xañ ko ay bànneex muy néew ak lekk néew ak naan néew ay nelaw néew ab jaxasoo bu boobaa dañuy gis mu mel ni lu rayee yaram wi waaye nag dund googu dafa gën a for jëmmi doomu aadama dañuy wax ni ñett yooyu ci lay dund mooy alxayaatu ruuxiya wal xayaatu l wal xayaatul badaniya maa nit ki ci yaram lay dund ak ruu ak xel yaram nag lekk ak naan ak ngelaw ak xool rafet ci lay dund bu dee xel moom ci xam-xam ak gëstu lu ci aju ci lay dund bu dee ruu mi ngi dund ci wàllu jaamu yàlla léegi nag nit ñi dund googu ma jëkk tudd muy dund gi nga jëkk jot rek muy dund yaram daanaka moom lañ moo leen gën a ñor waaye nag gëstu boobu yi nga xamante ni yonent bi mi ngi doon wax ak kilifay xuraysin Eh, Abdoulaye ibn Maktoum ñëw bi mu ñëwee mu xatal ko ba tax mu mu won ko gannaaw daal di ñëkkal kanamam te yàlla yedd ko ci ab dës la bopp waras na cee jëlee eh, njàng mu bare bari ci jamono bi toll ak eh, nii madda ëppe dole dunduk ruux benn wax ak sama benn xarit nii ne ko yow ni ma la gisee xaalis képp moo la ñor mun ma nag dafa ndànk ma wax la li tax xaalis ñor ma mu ne ko waaw mun ma damaa gis xaalis boo ko yoree bu dee nit ñi ñuy tudde nit yàlla boo fa demee da nga jàll nit ñi ñuy tudde nit yi àdduna boo ko yoree boo fa demee da nga jàll te boo ko yor fu ci ne boo fa demee doo jàll rek da ngay taxaw ci moo tax ma ko sàkk bëgg ko mu ko foofu neen li tax mu bëgg moom mooy gis na ni problème nit di am bépp jamono bii ci li mu gis moom mooy ñàkk waaye boo xasee yor jaax na loolu leneen la ngay la ngay mel la kenn du ko lijjanti man ko loolu mënuma ci dara ndax loolu loolu yi nga wax ni dama ko dama ko dama ko tëg bët moo tax siira yonent bi jamono bu rek am na lu ci jullit yi mën a jànge am luñ ci mën a dégge ci seet nu ñuy dunde seen adduna ba noppi te du yàq dara ci dund ba àllaaxiram wala tansa nasiibaka mina dunya loolu mooy euh, mooy wabtaxi fi ma ataaka allaahu daaral aaxira waaye nag wala tansa nasiibaka mina dunya euh, mooy jamono bu ne àllaaxira la jiital ginnaaw bu mu jiitoo ba noppi nag mu dolli na waaye nag bul fàtte li nga am ci àdduna ñàkk fàtte nag léegi tekkiwul nga fab seen lépp jox ko ko léegi ba tey Walid ibnul Muxiira xam nga dafa wax ni ci biir wax ji dafa wax ni ndax Muhammad moom bu ñuy wàccee ak wax ci moom la ñu wàccee bàyyi ma te man maay kilifa Xuraysh di sangub sangub Xuraysh ndax Muhammad dañ koy bu ñuy wàccee ci moom la ñuy wàccee di bàyyi diw ak diw loolu it ba fii nu toll nii mooy dox ci jamono ji waaye nag fekk ne ñu jël ci ñu war cee jëlee ab dërsum ni eh, ci aaya boobu yàlla wax foofu ni ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون loolu dañu see jubloo jàngal ñu jublu ñu war see jàng it ne xam-xam ak alal ak daraja ak kilifteef gu mu mën doon ndimbalul yàlla la ak xéewalam gu muy xool ku neex ci ay jaamam mu xéewale ko ko waaye tëkku ko ci diw doomi diw tëkku ko ci diw ci famille sàngam la bokk tëkku ko ci diw réew sàngam la bokk ba tax na ab jullit yàlla jàngal na ko foofu lu baax li yàlla def ci nit ki mu nangul ko ko bañ ko ko añaane yéene ko ko bu dee lu baax lu mu war a jëli mu dem jëli ko te koo bañ fenn bañ ko bañ a jëli fenn ndax yonent bi nee na al hikmatu dallatul mu'mini aynama wajadaha axasaha léegi lu baax lu réer la lu ab moom fu mu ko fekk daf ko war a jël kon léegi loolu danañ ci jëlee ab darsub euh, jël lu baax ak fu mën a nekk euh, jël ci darsub yit ni yàlla mooy seet ku ko neex mu defal ko ngëneel ci wàllu xam-xam ak alal ak daraja waaye du caagee ni nit ñi na mu leen neexee la ko yàlla tànn di ko defee déedéet kon euh, loolu ders bu am solo la bu ñu war a jël ci lool yi bi muy jaayante moom yonent bi sallam ak waa Madina ci bayxatul xaqaba dafa am ñeenti mbir yu mu leen wax muy ngeen jaayante ak man ni yàlla du ngeen ko booleeg dara du ngeen sàcc du ngeen njaalo du ngeen ray seen doom kenn du fi indi aw fen muy indi ci kanam ak gannaaw te du ngeen ma mooy ci eh, ci aw yiw juróom benn mbir yooyu mu wax ak ñoom la ca jëkk mooy al ishraaku billaahi muy bokkaale la ca topp mooy sàcc la ca topp mooy njaalo la ca topp mooy eh, ray sa doom la ci topp mooy fen la ca topp mooy ñàkk topp ndigal yooyu noonu ko yonente bi doon jaayantee ca bay xatul xaq ba nga xam ne ca njëlbeenu dina islaam la tey tey tey lañ ko gën a soxla ba fi nu toll nii yi nga xam ne moo yàqoon société boobee te yonte bi ñëwoon di ko defar ba fii nu toll suñu société bi léegi loolu li ci yàq loolu ko yàq kon jamono bu ne jullit yi war nañuy bàyyiwaat xel yooyu la ci jëkk mooy bokkaale ab jullit li muy jëkk a moytu mooy bokkaale na fab yàlla xam ne mooy yàlla lu du yàlla du yàlla sëñ ba jaxate wax ni jullit du yàlla yéefar du yàlla dara du yàlla yàllaa du yàlla moom ñoom tawxiid Sëriñ Tuubaa jàngalu na leen ko ba des koy jàng ci ñoom waaye doonuñ ñoo xamante ni kenn dana jaar ci dana topp ci seen gannaaw ba noppi di di di manqué tawxiid mbaa ngi di ko néewle dama yaakaar na ñàkk goo wax ñàkk xam li Sëriñ Tuubaa woote woon mbaa nga ñàkk xam ni mu yare woon ay magam moo lay dal waaw ah, muy fii muy feneen ak feneen ak feneen waaye damaa jubloo andi misaal rek ci Sëriñ Bay Jaxate ci ni mu waxee ci wàllu tawxiid foo xam ne dafay tagg Sëriñ Tuubaa ba ne ko ba ne ko sa ñu topp lay wéy tofal la woyee foo jëm ñu wër la ngir jëm ni yàlla ka tax ñu gëm la ba jox la mbiri kon kooka fa mu war a teg Sëñ Tuubaa teg na ko fa te taxul luy niroo ak bakkaale gi ñu ko mën a tumaale jax mu jaxase ko foofu ci diggante bi loolu ma jubloo wax rek ni juróom benn yi yonente bi doon wax ak euh, waa Madina ca bayxatul xaq ba tey lañ ko gën a ittiwoo ndax ba fi mu toll mi ngi euh, dox te lu yàqu ci am réew loolu ko yàq bokkaale moo ci jëkk ab yul di ko war moytu sàcc bari nañu woyofal lool sàcc nga xamante ne luñ jàkku rek jël ko waaw fu ñu ko gisee bu ñu gisee luñ bëgg dañuy jàpp ne léegi moom sàcc yàlla wax ci dara njaaloo lu tasaaroo ray ki sax moom xaj na mm, ray moom du habitude Sénégal waaye xanaa moom loolu ñu wax euh, planning familial nga xamante ne léegi da ngay jël ay comprimés ngir wàññee ko am njur mbaa nangam nangam yëpp day mel ne day dugg ci domaine mm, ray ay nit ngir nangam nangam loolu damaa jubloo wax rek ne lu tasaaroo la ba jamono bi ñu toll nii ittewoo nañu ko ni ko yonente bi ittewoo woon ñu jaayanteeg moom ci jamono boobu ci bay xatul xaq ba ci njëbbilu màkk bu kon loolu ab leçon la bu ñuy euh, soxla ci jamono bii ñu toll euh, ci jullit yëpp ci tàngook soow jullit yëpp ittewoo nañ ko jamono bi ñu toll. kon biñ jógee ci taayif ci ak dégg yooyu ñu dégg foofu ñu jàll ci euh, gàddaay gi yonente bi sama sama gàddaay yonente bi gàddaay gi mu gàddaay mook ñi mu ci jullit yi jóge màkk dem ma madina defu ngir daw lolou lañu wara japp defuko defu ragal defuko ngiruk nagu yermande yalla defuko defu ngir ne ab tukki la bo xamne day dem noppali bakkanam fofu ngir fi coono da metti ci coono wote woote bi dafa metti dé jubluwu ci lol waye gaday gi dafa don ab baras bu dox digante deug guñ don neewal doole ci birab ak deug gu nek ci birab libre fa ba meuna dox nam ko beugé deug gi genn nek na maka ñu fa xatal ba lam meuna dox ñu fab baaraas doxali ko ci diggante ñaari dëgg yi dëgg gi ci Màkka moo nekk ci Madina waaye dëgg gi dafay woon doole ñu di ko bund xatal dëgg gee ci Madina rek daa doon koo xam ne dafaa am doole libre ba mën a wane li mu bëgg a wane loolu yi kon mooy maanaam gàddaay gi yonente bi salaam salaam gàddaaye makka dem Madina waaye du caa génne daw la ci jublu mbaa mu jubloo noppalu yi ci coono yu bëri yonente bi gàddaay na moo jullit yi jóge Màkka bàyyi fa seen alal yëpp alal yi seen ngir dund moom lañ doon sonn ngir dajale ko bàyyi seenum réew mañ miinoon ngir fonk pas-pas biñ gëm muy yàlla mu mi ñu gëm bëgg a doxal la maanaam gëm moomee moo tax ñu bàyyi seen i alal bàyyi seen kër gañ miinoon naka jekk dem ci beneen dëkk di ko fa dund loolu kon waras na cee jànge ni nit ki bu yàlla fooree ci ab xolam lépp woyof ci moom ndax ñooñu mboolem alal jiñ daan dajale baye nañ ko fa rew mañ juddo won miin ko ba doon magi jëm yit attan nañ ko baye ngir bëgg a dëggal seen digënté ak seen borom kon loolu ab ders la bop waras ne ko ci jànge ndax fofu ca yasre ba ta moy madina am demé fa la taxawalé ab nos bu yees ci société islam bi mu taxawal nos bu yees bi mu taxawal nak xaajale ko yi amon ci digënté ki ñak ak ki bari le ak xaajale ko yi nekkon ci digënté gor ak jaam bi xaajali ko yi nekkoon ci diggante ki bokk ci giir sàngam ak giir sàngam yooyu yëpp foofa la seey ruy ba kenn gisatu lu ci bokk foofee ci madina la yonente bi amee maanaam mën a taxawal li mu bëgg a taxawal ba xaajali ko yi amoon ci diggante njëkk yëpp dafa seey ba amatul ñu doon ay jullit mbokkoo gépp mbokku diine mbokkook diine la léegi ñu doxal ko doxin woo xam ni kenn mës a gis euh, ku doxal lu mel noonu ci ci liñ xam ci taarixu taarixu foofu ci Madina it fi la yonent bi sallallahu alayhi wasallam sosee ab arme arme ci muhaajiroon ak lansaar yi arme boo xam ne li mu bëgg a tasaare ci mbalug dina ñoom ñoo ko tas ñoo koy tasaareel ba doole ji Quraysh amoon arme boobu ci fatu Màkka ñoo dem tasaare doole joojee ba fokkat ci eh, Màkka ci seen loxo moo jeexal jaamu xiram ci biir jasiratul arab maanaam arme boobu mu formé ñoo jeexal loolu loolu moo tax gàddaay gi doon xew-xew bu rëy ci taarixu daawa islamiya euh, ndax dafa mel ni yonente bi ngañaay lim gañe ci jihaad gi mu doon jihaad ngir jotal lim bëgg woote ngir jotal yonente gi day mel ni foofu yi la gisee ngañaay ci gàddaay googu bi mu gàddaayee la gis la am ngañaay loolu mu soxloon moo tax bokk na ci njàmbaare ko Omar ak xelam mu rafet ak xikmaam wax gi mu wax ni gàddaay gi dafa wax ne gàddaay gi moo xaajale diggante dëgg ak i neen kon na ngeen di def seen dati taarix ci gàddaay gi na ngeen ko ci def nga xam ne kon gàdda euh, taarix bi bi ñuy taarixal ci gàddaay gi Omar ibn Khattab moo ko digle ci ak yeewuteem ak xikma yàlla tagg na muhaajiroon yi euh, comme ni mu tagge lansaar yi ndax lansaar yi nga xamante ne ñoo dëkkoon Madina it ñoo leen teeru teer ba rafet yaatal leen bokk ak ñoom seen lépp bokk goo xamante ni kenn mësu gis bokk gu ñu mel ci benn taarix ci taarixu àdduna moom la yàlla wax ne wasaabiquuna al awwaluun min al muhaajiriina wal ansaar walladina tabauhum bi ihsaanin radiallahu anhum wa radu anhum mu ne ña gàddaaye woon Makka ña jëkk gàddaaye Makka ak ñi leen yaatal ca Madina ak ñi leen topp ci rafetal ñun ñëpp yàlla gërëm na leen ñu gërëm ko nga xam ne gërëmul yàlla kon yàlla seere leen ko foofu gàddaay it dafa bokk ci Euh, yoon yi mboolem defarkat yi daan jaar mboolem ñi daan defar jaar nañ ci gàddaay gàddaay dem ci béréb bu bees boo xam ne fa lañ mën a taxawale lañuy woote taarix nettali nanu ni Ibrahim gàddaayoon na jóge Iraq dem Saam ginnaaw bu ko waa Faris sonale bëgg koo lakk sawara wa gàddaaye woon na Iraq dem Saam loolu histoire nettali na ko histoire nettali nanu ni Moussa gàddaaye woon na Misra ànd ak ña ko gëm ñuy daw na ak i soldaaram Euh, dem euh, fële dem waaw gàddaay gën dem boru Israël histoire nett lanu ni euh, Isa gàddaayoon na ci jóge Baytul Laxam jëm Jérusalem Jérusalem mooy fi ñuy wax Quds léegi Isa gàddaayoon na ci Baytul Laxam dem foofu loolu lépp histoire nett lanu ko kon gàddaay mën si ci jànge ay dërs yu mag ñi nit ki nu mu war a muñe balaa ak nu mu war a war a ci lim gëm ak nu mu war a saxe Eh, ci lim gëm ba ba ko ngañaay di fekk si eh, kon daanaka jeex na xam naa li ci des mooy gàddaay ba tey am na leneen lu muy def ci jullit bi eh, mooy beneen ci dégg ni gàddaay daw dem ci yàlla lay tekki te daw dem ci yàlla képp rek saa bu kuy ab jullit defee gañe na dunduk matériel ki nga xamante ne moom itam day xëccoo ak yàlla doomu aadama bi saa bu nit ki dawee dem ci yàlla rek léegi ngañaay daal nay tàmbalee am moo tax yàlla bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam gàddaaye gàddaay googu mu tuddee ko ngañaay daal ni illaa tansuruhu faqad nasarahullah iz akhrajahu allazina kafaru sanis ne mi ngi jóg ànd ak ab euh, Seydina Abubakar làqatu ci am xunti te teewul yàlla làqatu boobu nga ngañaay la ko tuddee ngir daw gi gàddaay gi gàddaay jëm ci yàlla rek mooy jëmmi ngañaay ngañaay lay tekki jullit yi it yàlla def leen digal ñu daw dellu ci yàlla nee na fa firru ilallahi inni lakum minhu nazirun mubin loolu ba tey yàlla ko jullit yëpp Euh, gàddaayu jullit bi gise nañ ci ne dana ko andil daluk xel dana ko andil ndimbal lu bàyyi ko ci yàlla ndax dana ko andil ndimbal lu bàyyi ko ci yàlla ndax euh, yonent bi bi mu nekk Aboubacar ci xunti dafa wax Aboubacar ni ko laa tahzan inna allaha maana bu jàq bul ndax yàlla nun la àndal kon gàddaay ba tey des na ci déggee ni ab tegtal la ci ak sellal ak bëgg yàlla te sellal ak bëgg yàlla nag euh, dana waral ci nit ki mu bàyyi lépp lu yàlla tere moo tax yonente bi ne al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi waaye nag wal muhajiru man hajara maa nahaa Allaahu waaye kii gàddaay nag mooy ki fekk li yàlla tere mu gàddaay ko loolu moom mooy kii gàddaay dëgg dëgg dëgg gàddaay dem ci yàlla nag euh, jamono ne ju sell moo ko war a lal mbaa du doon gàddaay gu jëm ci yàlla ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na fa man kaanat hijratuhu ilallaahi wa wa rasulihi képp ku gàddaay te bu ngay gàddaay nga yéenee gàddaay dem ci yàlla ak yonentam gàddaay googu yàlla ak yonente bi danañ ko nangu waaye li dunyan yusibuha aw imraatin yankixuha fa hijratuhu ila ma haajara ilayh waaye koo xam ne bi ngay gàddaay addunaa la tax di gàddaay mbaa jigéen joo bëgg a takk moo la tax di gàddaay la nga jóg ngir ba ngay la nga jóg ngir moom rek moom nga ca amee leneen andi woo ko kon gàddaay jëm ci yàlla laaj na yéene ju sell yéene ju sell jooju mu laaj moo tax biñ demee ba fatu Makka am te bo joge te fi di gaday di dem màkk it foofa dëkkub jullit la jaratul gaday motax yonte bi sama ni la hijrata al fath walakin jihadun wa niyya gina ba fatha makka ne gaday amatul li fi des mooy ak am yene ju rafet kon fofu ab yemukaay kay lañu taxaw fi ci liñ ci euh yama fofu yene ba beneen yon kon ñu dugg ci marhala madina bi wasalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñaan bokk ci yëpp nak ak dégg ak top jere Assalamualaikum warahmatullah. rahmatullah ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaar ginnaaw bi ngeen digloo waxtaan bu am solo boobu ñu àndoon ci Serigne Bassirou Mbacke Xelkom ñu ngi di sant bu baax a baax ci topp gi ngeen di topp bii di SDP religion nga xam ne lu am njëriñ rek lañ fi indi di sàkku ci yéen ñëpp ngeen ñaanal Serigne Bassirou Mbacke Xelkom mu yàgg fi loolu te ànd ko wér bu loolu jàllee nag ñu ngi leen di sàkku ci yéen ñaan aussi yen ñi abonné ko di chaîne bi ngeen abonné activer cloche de notification bi te ngeen bëss tous bobu ñu bind j'aime dinañu jappalé lool ci liggéey bi ñi def kon nak ñi ngi leen sant bu baax baax di leen gërëm dinañ jox rendez-vous balaa dara ak ay vidéo yu am solo jërë ngeen jëf ngay man di jot vidéo yu am solo yi bayiko fi fii ci HDP religion da ngay bëss fi ñi wax sa bo noppé ñi tek ci cloche bi